Jokko TV moo leen di ñaanal màggalub jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki internet yi suivre Jokko TV ni ngi nii ci jëkk bu sell bi muy Touba bu moom Xaadimu Rasuul màggal Touba 2023 tabarakallah mu ngi noonu gis ngeen tabarakallah soxna Jaara nee naa la maa ngi ñoo bokk liggéey bi ma nga woon ca jumaa ju mag di démb ñun nag ñu ngi fii ci yoonu jannatu bi jumaa Cheikh Saliou yu bi nga xamante ni ndeysaan moo ne woon la sama waajur def ca mag ñi man dinaa ko def ci ndaw ñi yàlla na yàlla yokki jumaa ji ki gis ni mu taaroo xam ne fa tabaarakallaa am na solo ba tax na ñi ngi fi waaye jege nañ kër doomam bi nga xamante ni mooy sëñ Murtada bu Cheikh Saliou tabaarakallaa mu ngi noonu xam naa dinañ fa dem ziar suñu gaay yu baax yooyu waaye mu ngi noonu comme ni ma ne ko waxee rek yéen ñi nga xamante yéen ay siiwul Jokko TV ngeen topp ma incha allahu rabbi nee naa leen lu ngeen bëgg a xam ci màggal gi après màggal tabaarakallaa lépp lañ leen di jox incha allahu rabbi ndax li ngeen soxla yéen mbokki internet yi nit noonu leen koy jox ci événement yi nga xamante ne mooy événement yu mag yi incha allahu rabbi man la sopp na bi du si maa ngi ànd ak sama caméraman yooyu noonu muy Ousmane ak ki nga xamante ne mooy Alex Abdou Mbacke dana ca topp waaye jaara ma nga ca jumaa ja incha allahu rabbi gis ngeen la ma leen dégtal waaye ñun ñu ngi fii ci jannatu incha allahu rabbi ñu topp xool gaa yi ñuy jël ñu war ñoo wax ci li nga xamante ne mooy jumaa ji ak li ko wër ak Cheikh Saliou diggante digganteem ak Cheikh Béthio ay ca kon ngeen topp ñu daal di dem. internet yi suivre Jokko TV nuyu ngi leen baax ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi muy Touba bu Maam Xaadimu Rasuul màggal 2023 ngeen am ci waa Jokko TV mu ngi noonu gis ngeen image yi ñu leen joxee fan yi yëpp ngeen koy gis tabaarakallaahu démb soxna jaara gis ngeen ko dama nekkee woon ca jumaa ja ak liggéey bu am solo bu ànd ko équipe technique bi yëpp bu ko defee nag ñu ngi nii ci jumaa maam Cheikh Saliou Mbacke ndeysaan yàlla na yàlla yokki leeram te tas ci barkeem ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa boo xoolee ni mu taaroo tabarakallah li nga xam ne ah ku liggéeyal yàlla dëgg yàlla subhanahu wa bu lay jox ci ay teraangam lii yàlla na sa bu ko defee nag ñu toog ak suñu nijaay suñu kilifa muy Seyna Alioune ñu jox ko rek mu daal di nuyoo wax ñu ci maam Saalihu Mbàkke lu mu ci jot a wax rek incha allahu rabbi ba noppi wax ñu jumaa ji incha allahu rabbi sëriñ bi fa tabarakallahu kañ la ko tàmbali ak fa tabarakallahu jumaa ji ñu jox Seyna mu daal di nuyoo daal di wax li nga xamante ni fa tabarakallah moom lañ bëgg a xam ci fii ñu toog jumaa ji seen Aliou Sylla salaamaaleykum wa rahmatullah kon yéen ñi fi ñëw yéen rajo Jokko TV Jokko TV ngi leen sant di leen gërëm ndax ñun amuñu lu dul Serigne Saliou kon yaakaar naa ku ñëw fii fekk la koo xam te ni mhm. moom rek la Serigne Touba de sama doom mooy doom joo xam ni tam moom way juram rek muy Sëriñ Tuubaa moom rek la royal moom rek la doon itam ndeysaan doon ci yërmande ak euh, bëgg euh, taalibe yi ndeysaan yërëm leen te leen jàppale ba bañ na ko ba ne leen seen doom yëpp ngeen indi ko ma defal leen ci loo xam ne doonte lott naa ci ma defal leen ci xam ne suñu suñu jógee ay royukaay la ñuy doon insha waaw kon nag jumaa ji hmm. moom moo ko tàmbali lan boppam hmm. ak këram ji bu hmm. ko tàmbalee ba nga xamante ni kii na tam ñaari toroon fi nekkan mu joxaat ko Cheikh Béthio mu yeggaleen ko nii ba mu yegg bu mu yeggee sax ci la ci la ci la Cheikh Béthio fekki kilifaam bu baax toogee léegi nag mu tege ci loxol sëñ Cheikh mu tegaat ko ci loxol sëñ Mourtala Njaarami kon nag sëriñ Saliou moom doon na koo xamante ก็บคุยูดีแข่งที่ไอ้บริมอำนาจจะทำมันสำหรับวายนั้นดวนทะลุทันจะทำนกขามันเรียนก็คุยยาละเร็กมองนกมันอ่ะเฟลนักเก็บก็ขามันจะนิยามกันที่ดารามเดฟเนที่เอาล้อขามนี่เร็กงั้นบังขามันจะเร็กกันที่ยาละบังขามนี่ดาราดูดูดูทุเลยกติก็ดีกู่าที่แค่เล่นักสำคัญดันดัลดันละเทคนักดานว่าสังเวยจุลมุนิก็ man de wax nañ ma gàmm mhm. waaye la dem ma ci damaa xam ne bëgguma ma dem fa ñu ñu Saliou mii de euh, ñëwoon na ci te def nañ fi lu xar yàlla kon moom Serigne Saliou mhm. yàlla rek ko ñoroon ak liggéeyal yàlla mhm. ak jël euh, doomu adama yi defar leen fu ñu dem fu nekk doon fa ab royukaay ñun loolu lañ xam ci Serigne Saliou kon yàlla nañ ko yàlla feel yéen ñi fi ñëw itam yàlla na leen suñu borom defal aajo ju faju saayir te képp koo xam ne seetaan na ko sax yàlla na ci jariñ jërëjëf jërëjëf Seydina Aliou Sylla mu ngi noonu kàddu yi am solo yooyu noonu nga xamante ni wax na ko fi ñu toog ci jumaa maam Cheikh Saliou Mbacké li mu wax fa tabarakallahu mooy li nga xamante ni mooy li neex a dégg kon yow mi nga xamante ni yaa déglu kàddu yi am solo yi yi suñu waajur suñu ndijaay suñu papa Seydina Aliou Sylla wax ci maam Saliou Mbacké ak jumaa ji ñu ko tàmbalee ba jox ko Cheikh Béthio Thioune ndeysaan ba jumaa ja yeggee dégg li mu la wax nee na boobu la Cheikh bi wàññi ko ndeysaan xoolal li yàlla subhanahu rek liggéey ba ko sëriñ bi dénk ba mu yeggee la la ko yàlla jël kon xam nga ne kon tabaarakallaa lu am solo la bu ko defee rek ñu jox ko bu dee am na lu mu ciy dooleer mu doole ko ci mu daal di joxe kàddu incha allahu kon Cheikh Béthio ñun taalibe yi nga xamante ne fekkan nañu ay jàpp dal mm-hmm. ak jural ak ndox ak gox ku xamal na ni mu defal Serigne Saliou te dem na ba moom de li mu def ci moom mm-hmm. du ko def ci ku ku ku sant Silla wala ku sant Jaxate mm-hmm. wala ku sant nen ndax liggéey na liggéey boo xamante ne nii ci moom mhm. euh, ndab la lu ko sunu borom defal mu def ko ci moom te sëñ Tuubaa moom du jeexal dara te sëñ Saaliw nee na euh, lu yàlla yaatal mhm. kenn du ko xatal moom foofu la taxawoon kon yërmande jaam ñi rek la fi nekke woon moom nungu lan na moom itam Cheikh mhm. Béthio kenn ku ne ku nekk ci daara yi sëñ Saaliw rek xam nga ni moom moom moom moom moom démb woon du tey waaw ku ne xam na démb la woon du tey ndax sëriñ bi ba mu koy jox am nek ci kërëm gi mhm. ñun boobu ay tout tank lañ nga xamantene nga xamantene da daan dajale mhm. ay xéewal uh-huh. luñ ko indi mu indi jox ko mhm. diko ko dajale di ko jox diko ko jox ngo suba ba ngon señ bi ñew lemu lemu ñam yi ñu do ko señ sëñ togo ko khalifa kon nun xam nañ ni ñom ñaar ànd la bo xamante lu yag la ta ta ta tañ and ngir jëmmi suñu borom rek lool rek la fi Cheikh Béthio lëf ko mëna wax ci aduna lu dul ak mbax rek kooko juum la Serigne Saliou nag daa doon waajuram ci ci ci ci saayir ak baatin ba moom ci boppam day warmaal bu mu warmaal sëriñ bi moo tax mu def ko ak cantaakoon kon ku ne xam na ne gis ngeen ko fi nii ba mu fi jógee dafa mel ni bés bu set suba gu xëyee lam doon def day gën a yokk kon Serigne Saliou moom moom yàlla rek moo nu ko mën a fayal yéen yéen ñi fi ñëw kon yéen ñoo ngi leen sant te di leen gërëm te seen rajo bi tam suñu borom def ci ak tawféex yéen ñi ko waaxu di ko wuti sam kenn ku ci ne fu mu borom defal la ay teraanga mm. ndax ñun amuñu lu dul Serigne Saliou kon nag ku dikk ku dikk ngir Serigne Saliou mm. ñun day amuñu lu la faye mm. xanaa sant la ñaanal asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf macha allah Seyna Ali ndeysaan kontaan bu baax a baax mu ngi noonu dégg ngeen kàddu yi am solo yooyu noonu yéen ñi toog ci internet bi yéen ñi seetaan Jokko TV incha allahu rabbi ngeen topp ñu daal di continuer li nga xamante ne mooy suñu programme ay suñu ànd ak suñu caméraman yi ñu dem incha allahu rabbi mu ngi noonu ngi nii ci jumaa ji ba léegi taxaw incha allahu rabbi ñu feggoog suñu mbokk taalibe yi nga xamante ni mooy Baay Moor ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax ndeysaan dañ koy jox rek ñu laaj ko mbégteem ci màggal ak lan la ciy wax Baay Moor ah màggal bi moom moom tarfukala moom ngi def rek yokk ah, moom a ah, bu wootee moom ñu koy ñu koy ñëw teewlu daal mm. màggal bi moom neex na moom tarfukala moom waaw bay Mor tay buma la doon laaj bi nga dalé ñew magal Touba ñaata nga mhm. mm, am. mo dalé ñew magal après ma ñam ay 18 ans ndax bi may sama quatre troisième fois magal moo tax daaw ma ko tàrral instant mhm. ah, ma ko xese ñam ray ba légui mom ah do dama ko tàrral ndax magal mom ñam na trop mom tijan la may may ñew sax ak mom dama ñew magal inshallah de nga bay Mor li wax neena talib taalibi Cheikh Ahmed tijan Serif la waye neena da koy ñew magal ngir lan li nga xamanteni ni la yalla subhanahu wa taala wax waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu japp ne sama benn buum bi ngeen xamni bu ko japp ci man la jëm mag ñëpp ca mom lañ jëm mom moy talib cheikh waye mu ñew fekk ci mbokki murid yi daal di ñew andal ñu àndal dama lay laaj bàyyi moor bi ngay ñew daay da nga andal wala nga yoru ñew non damaa yooru ñëw damaa ci buntu sama moo samay rakab dañu ànd dégg nga lim wax neena na ay rakam ñoo and ndeysaan ñew rek ngir li nga xamanteni ni la mam borom touba woote bu ko defee bàyyi moor ñu jox la rek nga tàggatoo incha allah. waaw bu ko maa ngi ñëpp seen émission bi yàlla jëm kanam. amiin yàlla na yàlla def ni rafet parce que chaque màggal moom ñu kii nii na rafet trop ah màggal gi moom neex na macha allah moom. ah yàlla na mel bii moom yàlla na mel beneen bi rek. waaw ah, mu neex trop moom incha allah. gis nga kon ngi noonu Sénégal benn bopp la. murid yi woote waaye tiijaan yi nee nañ duñ dem bàyyi leen fi kon mu ngi noonu maam borom Touba maam Seex Seydi Xaaji Maalik ba ca yonent yàlla Muhammad Ousmane ñu seeti leneen ba léegi ñu ngi ci jumaa ji barakallahu Cheikh Saliou Mbacke mu ngi noonu kon bu ko ñu ngi nii feggoo ak soxna Mariama dañ koy jox rek mu nuyoo mu daal di ñuy wax mbégteem ci màggal gi soxna Mariama nuyu nañ la ñu ngi sa tuwaay bu baax mm-hmm. ah màggal gi rëy lañ ci am contentement waaw loolu rek lañ ci dund allah moom. soxna Mariama fan ngeen jugee yéen. ñu ngi lañ si suñ Touba ñaan la. daayira ngeen àndal wala da ngeen def seen. daayira la ñu daayira ñu tudd. ñu taxul fu yooru wal allah kon fa tabarakallah dégg ngeen ni ko soxna Mariama waxee. nee na ñu ngi jugee ca Pikine Icotaf ñëw ànd ak seen waa daayira ñëw ci màggal soxna Mariama bi nga yegg Touba lan nga njëkk a lan nga ci ah mbégte ma rëy mbégte mu rëy moom yëg naa sama xol macha allah moom màggalu ren moom lu mu ci yëg moom mosuma kaa yëg léegi lan ngay wax jeunes yi nga xamante ni bu màggal gi jotee ah dañuy taayal a def seeni yitte ngir ñëw ci bërëbu sell bi ñëw ci màggal. ah di leen wax di leen gën a soññiwaat ndax màggal gi moom suñ ko waa musul woote nee na kaay leen sant ma yàlla mu bësam moom bu ko wooyee. ay ca waxal rek ay sar macha allah dégg nga nee na yow mii nga xamante ne yaa ndaw li toog fa nga toog te moom xaadimu rasul woote ne kaa leen sant li ma yàlla defal yitte bu beneen yoonante 2024 nga fexe ñëw ànd ñu ci màggal bi kon bu ko defee Ousmane ñu seeti keneen ngi noonu fa tabaarakallaa ba léegi ñu ngi nekk mbokk mbokki taalibe yi yéen ñi nga xamante ne yéenay si wur Jokko seen télé bu mag bii nii soxna Maymuna Bodian leen taxawal ni moom mu ñëwoon ci màggal ñu bàyyi ko moom rek mu daal di nuyoo te wax mbégteem ci màggal bi surtout ren bi nan la ko dundee soxna may moom nuyu nañ Hello mm. ñu ngi lay laaj soxna may mën a ndeysaan xoolal ñoom dañoo bëri kersa soxna may mën a dafa mel ni daa da ngaa añ wala ndékkee ba nga wax ci kaw ñi lay seetaan mbokki internet bi daal di xam ni kii mooy soxna may mën a ñëw na ci màggal gi waaye am na mbégte lan mooy lan lan nga lan nga yëg nga yëg say ci bërëb bu seen bi ah alhamdulilah. Mm. neex na trop moom c'est la première fois ma ñëw Malta. ah waaw ah, maa ba fi ngeen soor. dégg ngeen li mu wax nee na fois muy ñëw fi nga xamante ni mooy Touba bu maam Xaadimu Rasuul ma nga jógee ba Ziguinchor nuwaa Ziguinchor def. ñoom it waa ñëw na ñoom ñëpp ah. waaw ah bi ngay ñëw soxna Maymuna daayira nga àndal. wala dafa am daayira nga àndal. daayira bi nekk Ziguinchor kon gis nga waa Ziguinchor sax takk nañ seen i bagage ñëw ci màggal bi nee naa la màggal gi moom Xaadimu Rasuul yàlla daa yaatal léppam bu ko defee sa kàddu gu mujj daloo ah. waaw looy ñaanal waa Sénégal ah, ñëpp ñu teew rek ci màggal bi incha allah bu déwéne waaw ok mu ngi noonu ndeysaan dafa bari kersa waaye Ousmane ñi seeti keneen ba léegi ñu ànd ak yéen ci ñi nga xamante ni ñoom lañu gis rek ñuy taalibe yi nga xamante ni ndeysaan pas-pas rek moo leen moo leen ku ne xam ne ni fa tabaarakallaahu màggal gi ren dafa alaa daw soxna Astu Fay ndeysaan élément Maam Saadi moom lañ taxawal nii ñu nuyu ko ñu laaj ko soxna Astu noo gisee màggalu ren bi waaw ak sa salaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku fi fekk di jox seen wàccuwaay waaw màggal Sëriñ Touba bi neex na waaw Touba macha allah boo fi ñëwee dañuy wàcc seen lali jox gan ñu tëdd lekk gi bari na naan gi bari na li fi waaye yàlla na ko Touba nangu si yo yonent bi di ñaan yàlla ñu fekk at yu baree baree baree bari képp ku jóge Dakar dëkk boo jóge ñëw pour màggal Serigne Touba bi rek li fi waaye ñaan yàlla na ko Serigne Touba di ñaan yàlla ñu fekk at yu baree baree baree baree bari si barke yonent bi waaw kontaan naa loolu lekk yi bari na naan gi bari na macha allah Touba daal tawfiix la di ñaan yàlla ñu fekk at yu baree baree baree si barke yonente bi waaw dafa wax ju am solo yow mi may suivre nee na Touba bu gan yi yegsee ñoom ñëpp dañuy wàcc seeni lal génn léegi bàyyi ko gan yi mhm. waaye yëkkati seen teranga lu ñu mënti am daal di koy jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy gan ñëw waaye soxna Astou Faye mhm. lan moo tax ñu naan la élément maam Salim man macha allah dama bëgg Serigne Salim Mbacke mhm. waaw di ñaan yàlla nag si bësu màggal gi ñu ñëw di ñaan yàlla yàlla may borom kër bu baax ba ma am doom ba tuddee ko sëñ Saalum Mbàkke daal dama ko bëggal sama bopp waaw fépp mu mën a toog lu waay yëngu sax bu dara ci tëbee sax mu tiit sax dama sëriñ Saalum man daal ma bëgg sëriñ Saalum Mbàkke waaw di ñaan si bàckeem bu déwee ne yàlla na def ma ànd ak sama borom kër ñëw di ko ziyaare si bàcke yonent bi waaw ndeysaan ñu ko koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal bu nee sëriñ Saliou rek sama xel dafay dem ci soxna Oumou Saliou foofu ci Kër Massar dinaa ko boole moom incha allahu rabbi jërëjëf soxna Astou yàgg ñu nga àndal Ousmane ñu nee naa la màggalu Tuubaa gi ren dafa alaa doome ndax mag ñi ñëw nañu ndaw ñu ñëw nañu waaye ndaw ñi am nañ lañ ca wax waaye mag ñi it waruñu mën a des ginnaaw ndax ñoom ñooy jël seeni njaboot daal di leen di encadré def leen ci oto muy daayira wala association wala mouvement ñëw fekk si màggal gi ba tax na suñu yaay maam Faatu moom lañ taxaw ni ak njaboot gi nga xamante ni moom la àndal dañ koy jox mu nuyoo wax njaboot gi mu àndal ban daayira la ak fan lañ jóge ak biñ ñëwee ci màggal gi ban mbégte lañ ci am ak nuñ ko dundee yaa maam Fatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar jox seen wàccuwaay hmm. waaye màggal gi ñu ngi hmm. jógee Pikine day na fu taw yo baar maraat am hmm. te duñu ci màggal bi ñëwee rek dafa mel ne sëñ bi ñu ngi ba tey waaw ak yokkute wax dëgg yàlla dañ koy yépp moom gi lépp ñu fi indi rek bi fi ñu ay milliards sa bëgg fi noonu de de la mais kontaan ak mbégte lañ ànd ànd ak suñuy njaboot ak suñu rak ak suñuy doom hmm. di ci kontaan loolu wax dëgg yàlla hmm. waaye li ñu wax ci la jërëjëf sëñ Saliou ñoom daal am ñu seen fay daal li seen leeraay bi nekk ta taas ñu seen barke barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa maam Fatou xale yi nga àndal muy daayira bi mhm. tabaarakallaahu noo gisee seen taxawaay ren xale yi ñoom rafet na seen taxawaay rafet na ñu ngi ci waañ bi bëgguñu gan ku nekk bëgg ni ba gan yëpp bëgg suñu dal bi allah wax dëgg yàlla mention spéciale moom dañ leen di yoon bi ñu jël nii suñu borom bi dafa leen ci ndam waaye te ñu màgg ba fekk seen njariñ setaati set waa am na ci taxawaay bu rafet am na ci taxawaay bu rafet dañ di ñaanal rek waaw dañ di ñaanal bu ko defee yaa maam Fatou balaa ñoo dem dañuy faral di wax ñun man mu ñu gis danañ la wax nga ñaax njaboot yi nga xamante ni mhm. ñoo nekk ci seeni kër màggal jot wala gàmmu mhm. wala yeneen i événement daal di jot mhm. ñu daal di toog lànk ne du ñu dem ci yooyu lay mbërëb lan ngay ñaax yooyu lay njaboot ngay njaboot ma leen ñaax daal mooy ne ku yàlla dimbal ba sa njaboot tey la ci yoonu suñu Tuuba dana yokk koo def di sant yàlla ñu njaboot googu nag nekk foofu yàlla xëy leen ci yoonu suñu Tuuba ba ñu ñëw fi duñ ko rëcc mukk bu mu tere ngi sante daal di am mbégte nag ci màggal heure bu rek fekk ci li raw suñu njot mais ñu ngi sant bu baax di sant sëñ bu mag waaw ci am mbégte ci màggal gi ba tax na ren ji Jokko TV nee la moo lay jox li lay bégal mm-hmm. bay tax fi nga nekk yow nga mën a bég di bégale. incha allah yen mbokki internet yi suivre Jokko TV mu ngi noonu fa tabarakallah gis ngeen. ñu ngi leen jëlal soxna yu baax yooyu ak suñu yaay yooyu ak suñu yooyu noonu ci màggal gi nga xamante ni fa tabarakallahu muy 2023 di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp luñ fi ñaan yàlla nañu ko yàlla subhanahu wa taala nangul ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal mu tax yàlla yàggal ko fi ak mboolem njabootu maam ahmadul Khadim di wax ni liggéeyu maam borom Touba mooy yaata lii lépp ba nga gis li nga xamante ne mooy li nga xamante ni mooy liggéey bu rafet bi waaye nee naa la ñun waa Jokko TV ñooy ànd ak yéen boo bëggee lu baax da ngay seeti yu baax di joxe lu leer nee naa la waa Jokko TV ñoom ñooy joxe lu leer naññ mu ngi noonu incha allahu rabbi ñu nekkoon fii ci jannatu ci jumaa maam Cheikh Salihu Mbacke fa tabarakallah nga xamante ne comme ni nga ko déggee sànq suñu baay Alioune Sylla nu mu ko waxee nee na sëriñ bi moo tàmbali waaye teg ko ci loxo yi Cheikh Béthio Cheikh Béthio bi jumaa ji yeggee boobu la ndeysaan yàlla def mu génn àdduna di ko ñaanal moom it yàlla na yàlla yokki leeram ci barki seen ama sallallahu alayhi wa sallam mu ngi noonu kon fa tabarakallah ñu tàggatoo rek mu ngi noonu waaye du tàggatoo boo xamante ne mooy tàggatoo faw nee naa la pareeguñ ci yéen waaye ñi ngi jaajëfal ki nga xamante ni mooy suñu équipe technique bi nga xamante ni ñoom la ñoo yor wàllu li nga xamante ni bu ma nee nii ngeen gis ma bu ma nee nii gis ma bu ma nee nii la ngeen gis ma muy Ousmane ak ki nga xamante ne mooy Alex waaye ki nga xamante ni moo nekkoon si wàllu réalisation bi nag mooy Abdou Mbacke ñu ngi koy saw di ko ziyaar ndeysaan di ko béggee bu baax di béggee PDG Cheikhou Cheikh ñaan ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko jàmm jaara ñu ngi koy béggee di béggee mboolem ku nekk Jokko TV Jokko TV ca kaw ca kanam màggalu Tuuba 2023 ñu ñaanal leen jàmm gu sax daat salaamun minallahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu